aywa kon mu ngoog gannaaw bi ñu jaajëfalee bu baax a baax euh, rédaction bi nga xam ne ñoo nekkoon ak euh, ñun euh, Maodo Faye ak mm, Ndeye Marème Ndiaye doon leen jottali xibaaru bitim réew 11h et minutes ñu daal di dikk nag ci Café Touba ma janook Serigne Mbacke Sylla <laughs> di ko nuyu di ko ziar amati mbégte lool lool lool suma janook moom. macha allah Mbacke maa ngi ziar. waaw kay Nico maa ngi lay fay. jërëjëfati waay <laughs> ma yem ci Nico ji bañ a àgg ci. waaw waaw maa la ko <laughs> ñoo ngi naan café la maa la ko wax boo demee ci naankati café yi dëgg bu ñu yeewoo dañuy naan mm. bu yoor yooree itam dañuy naanaat mm-hmm. kon heure bi heure u naanaat maa la ko wax <laughs> leeral mbokk auditeurs yi ne mm-hmm. café Touba gi ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi leen ko jagleel euh, ngir waajal màggal gi parce que gis nañ ne euh, Moustapha Dieng mu ngi mm-hmm. def euh, loolee di 18 safar am solo lool ci journal bi wante it ci pàcc bile nga xam ne dafa itteel nit ñi mooy waxtaan yeeg yu ni mel ñu ne daal màggal gi toll na dayo boo xam ne il faut ñu jël benn pàcc bu euh, beneen euh, yokk ko ci ngir hmm. euh, waajal màggal gi defe naa màggal màggal geen yi toll màggal geen yi toll Nicolas jërëjëf ni nga ko waxee xam nga lu baax bu ko nit sosee jamono ju nekk buy dem day gën di yokku parce que yàlla moo toll noonu hmm. moo tax màggal gi ki nga xam ne moo sabab màggal gi moom ba mu koy wootee la jamonoom tollooloon da koo def hmm. mooy daa waxoon mag ñi ne leen bis bi fu mu dellu seetee na ma ñëpp santle yàlla hmm. ndax li ma am lépp ci bis bi laa ko amee hmm. booba kenn ku nekk da nga koy santale euh, boroomam ci sa kër hmm. maanaam Nicolas bu 18 safar jotee day fexe ba waa këram mu berndeel leen fexe ba ñëpp bég fexe bañ xam ne tey jii mooy màggal loolu moo doon am mag ñi sax xéroon nañ ba daan ko tudde nu ne ndax xam nga euh, jaam bi bu góorgóorloo bëgg boroomam ba noppi maandu fegu di góorgóorlu day dem ba yàlla bëgg ko bu ko yàlla bëggee day def nit ñi bëgg ko ba duñ am ci moom sago euh, buñ ko bëggee ba duñ ci am ci moom sago bu joxee ndigal kenn nekk jëfe ndigal loolu da lay gënal loo mën a am bi sëriñ bi door a wax ne nañ ma sant li sama borom bu bis bii dellusee hmm. am na ci mag ñi ñoo xam ne hmm. ba bisu hmm. ba di ko tuddee tabaski waat waaye ba mu agsee ci la nañ ma ci sant le sama bi bisu nattu la Nicolas bis la boo xam ne dañ koo génnee këram mu won ginnaaw njabootam won ginnaaw ay soxnaam woon ginnaaw ay doomam woon ginnaaw ay taalibeem waaye nee na bis bi li muy metti metti di bisu nattu mooy bisu bisu sant ci man waaw mais euh, loolee di euh, diggante nattu bi ak euh, moom mu laaj nañu ko ko santalee suñu borom da loolu bëgg naa ñu ñëw ci bu baax a baax. gën mm-hmm. koo tas mm-hmm. ngir nit ñi gën a a comprendre en fait loolu lan lay lan lay signifier. Mm-hmm. mais laata loolee. dama bëggoon ñu dem diwaan ba. waaw hmm? ñu fekk ji fa ajaratu tuuti sëy <laughs> kon ma bàyyi la ak moom Serigne Mbacké Sylla. ajaa tuuti. waaw Oustaz eh, ñoo ngi lay ndokkeel ci céet gi. waaw <laughs> yow moom yow moom sax màggal ren ala daw mi na ba noppi. ay ah. <laughs> ayca bisimilah kon kon yaa ngi ci biir Café Touba. waaw. Eh, naka foofu naka naka dëkk bi ak waajtaayu màggal gi ak ni nga xamante ne. waaw waaw noonu da nga ko jaxase nag sëriñ ya ma loolaa bëgg. da nga ko jaxase en direct dama koy dóor dara ba pare dóor koo kii waaru ci boppam rek la nekk xam na moom moom xam na man xam naa. <laughs> ayca <laughs> Adja madame Mbacke bismillah <laughs> waaw waaw jërëjëf Oustaz euh, maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu di nuyu Nicolas di nuyu auditeurs yi nga xam ne ñu ngi bàyyi Sud FM yëpp rawatina ñi nga xam ne ñooy faral di déglu émission bi particulièrement aussi ñuy bàyyi xel émission bu bees bi di Café Touba ñu koy rafetlu nag mu nekk une bonne initiative ak moom am na habitude événement bu am rek dan da ci taxaw ni nga xam ne noonu la ci war a taxawee euh, Nicolas wax na ko sànq gis nañ visite safar bi nga xam ne Moustapha mi ngi koy def ak émission bi ñeneen yi nga xam ne tamit euh, ñu koy def jëmale ko ci événement bi loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax euh, jëmale ñu nga xam ne ñu ngi ci safar bi fi mu nekk nii comme at mu jot rek ni ñu koy waajalee noonu lañ koy waajalee at mi tamit fi nga xam ne moom mooy Touba Euh, parce que euh, waa Touba moom segam ñoom ñooy dalal gan yi am nañ ah bu màggal jub see rek daanaka un mois avant màggal wala sax lu ko jiitu ñu commencé ñoom di def li nga xam ne moom mooy seen ay réflexion yeesal seen i kër defaraat seen ay peinture ñu changé seen ay meuble euh, bu ñu demee nag ba safar bi dugg si ñu ci biir commencé jënd li nga xam ne moom mooy seen ay approvisionnement li nga xam ne moom la ñu war a berneele parce que dañu wax ni màggal moom berne jàng alxuraan jàng xasaayit ba tax na berne bi moom nekk na ci lu am solo loo xam ni waa Touba vraiment dañ si bay seen waar bu baax a baax a baax ku nekk daal dañay bëgg sa ay gan du duñu duñu duñu ñëwee kontaan ba bu beneen yoonee ñu sawar a ñëw ci li nga xamante ni moom mooy màggal gi euh, ñu fi mu toll nii nag ni ngeen ko xamee ren bi nga xam ne ci la màggal gi nar a amee ñëpp xam nañ ko muy li nga xam ne moom mooy Covid 19 bi ba tax na euh, sensibilisation fi mu nekk nii moom mooy li nga xam ne moo gën a fës ci biir Touba euh, gis ngeen ñuy def ay publicité a travers la presse surtout ñi nga xam ne ñooy chefs religieux yi ku ci nekk daal yaa ngi xool ban manière ngay sensibiliser bi nga xam ne ñoom ñoo ay ay taalibe parce que xaalis bi moom moo ko njëkk a wane moo njëkk a wax ñëpp respecté les mesures barrières moo takk masque ñu wane ko euh, mu wax. ñi nga xam ne ñooy askan bi dañ farataal takk masque bi parce que li ñu bëgg mooy te benn cas du am loolu moom moo tax ba chef de liggéey yëpp topp ci ginnaawam ñoom tamit di sensibiliser seen ay taalibe également ñeneen tamit ndaw ñoo xamante ni ay bon volonté lañ ay jeunes ci contribuer ci li nga xam ni mooy sensibilisation bi pour que daal benn cas bañ a am masque yi nga xam ne moom la ñu digle ñu bëri boobu ba léegi ñu indi seen ci di indi ay loolu masque di ko jox ki nga xamante ni moom mooy général ngir li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu rek mesure barrière yooyu ñu mën koo topp bu baax a baax ci biir famille aussi antum na ni ma ko waxee sànq dañuy farataal berne yi waaye ren jii ñu ci bëri nee nañu berne yi buñ koy bu ñuy bu ñuy jën li nga xam ne moom la ñuy berneele aussi dinañ ci boore loo xam ne dina mën a tax askan respecté mesure barrières yi xam naa li ci demee ni ay masque li nga xam ne moom la ñuy raxasoo ak ak solution alcoolique yi ak yu mel noonu yëpp a ngir li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu mesure yi mu bañ a mu mën a yomb ci askan bi nga xam ne ñoo nar a ñëw ci màggal ci hmm. am na solo de euh, Serigne Mbacké Sylla euh, def naa kon askan wi euh, li sëñ bi digle hmm. ci wàllu sensibilisation par hmm. rapport ak voilà période bi mu tombeel def naa askan wi donc ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax te damay faral di dégg ñu naan taalibe moom dafay wéye ndigal noonu dëgg la dëgg la Adja Tuuti li nga wax noonu de lu wér la li koy firndeel man ci barki démb rek maa ngi jógee ci kër sëriñ bi waaye booy dugg ci buntu kër gi hmm. li ñu lay njëkk a def mooy jox la masque hmm. même bu yoroon nga sa masque bopp sax dañ lay jox masque defal la sel nga door a dugg ci biir kon hmm. day day tegtale eh, eh, di ko xeex maa ngi leen ciy jàppale santaane naa ko te itam digle naa loolu loolu am na defe naa sax tuuti ren ci màggal gi programme yu baree bari du am de waaw programme yu bëri di am am na changement surtout la cérémonie parce que cérémonie officielle bi nekkoon na maanaam activité bi daanaka ëpp solo ci li nga xam ne mooy tey ñu ko daan def bu ñu màggalee ba ca suba sax. Hmm. mu nekk nag cérémonie boo xam ne képp koo xalaatee ci autorité que ce soit autorité administrative autorité religieuse ñëpp ñëpp dañ doon ñëw fekkete li nga xam ne mooy cérémonie bi kenn daaw ko bëgg a ratee même les autorités politiques dañ daan ñëw ren nag dañ cérémonie officielle bi moom bi ñu ko organisé ne ci benn daan doon da daan seet dellu dellu dellu xam naa ni nag ak nga xam. Mhm. situation bi am ni moo tax ngir ngir moytu rassemblement yi ñu ne kon cérémonie bi du am également am ay conférence yoo xamante ni oustaz yéen daan ngeen ko fekkee mhm. yu yoo xam ne dañ ko daan faral di def mhm. léegi ren yooyu dañuy utiliser li nga xam ne mooy technologie yu bees yi ngir jaarale ci loolu nga xamante ni moom mooy conférence yi ñi nga xam ne sax ñoom ñooy yor commission communication ñoom ñi ngi ci euh, def communication di ñi nga xam ne ñooy tefkatu xibaar yi également disposition yi nga xam ne jël nañ ko ak tamit joxe ay liens yoo xam ni bëgg a suivre euh, en direct nga xam ne moom mooy conférence yooyu diñ ci mën a dugg ngeen mën a suivre loolu nga xam ni mooy conférence yooyu nga xam ne moom lañ daan faral hmm. jamonoy màggal gi mu mel ni daal ren kon màggal spécial la ñu nar a am ren ji ak coppite yooyu nga xam ni moom mooy ci am euh, ak ci contexte bi nga xam ne moom la ñuy dund jamono yi ñu am na solo kon euh, ajaratu tuuti say xam naa danañ gën a ñëwaat euh, fii ak euh, semaine bii di ñëw ah. Mm-hmm. gën a xool voilà fu nu toll ci situation bi waajtaay yeeg yu ni mel xam naa ne lu bëri yaa ngi yaa ngi ñu koy yaa ngi ñu koy waajalal dinañ ci dellu siwaat ñu ngi laa sant bu baax di la gërëm tuuti. <laughs> jërëjëf jërëjëf ñu ngi tuuti say di ko sant di ko gërëm Sud FM ca Mbacke ñu ngi ñëw dégloo ci 91 point 2 fa la ñu jokkoo léegi ak tuuti sëy di sunu ndaw lanu fa toogal ca eh, diwaanu Touba ak Mbacké waa tey ca Diourbel 94 point 1 ñu ngi ñu fa déglu d'ailleurs euh, puisque dañu tàmbalee tey ak tuuti sëy euh, puisque màggal gi yemul rek ci Touba ah màggal gi def naa Sénégal yëpp la donc euh, bu ko defee danañ gën a xuus gën a <laughs> xool également ci yeneen diwaan yeeg gox yeeg goxaat yi ñoom itam nanuy nanuy màggalee màggalu ren parce que da ci am solo mm-hmm. Serigne Mbacké mm. sànq ñu ngi wax maanaam ci loolee nga junj mm-hmm. muy maanaam sëñ bi mm-hmm. la mu dund ci métit ba pare euh, malgré tout mu am humilité. Mm. wax ne euh, màggal Touba gi nanu ko ko santalee suñu borom. en fait euh, métti bi sax moom teg na ko. de côté benn instant xalaatatu ko sax. naka la ñuy mën a comprendre waaw xam nga léeg-léeg ak pay bu ñëwee. Mm. bu pay gi duunee day fàtteloo nit coonab liggéey bi. Mm. maanaam tey li ngay def ma di ko def ñuy góorgóorlu nii su fekkente ne da ngaa wàccoon rek. dajeeg directeur ci escalier yi mun la woo Nicolas merci sa émission tey bi neex na. Mhm. même su fekkee doyaloo nelaw bi ngay xëy si. Mhm. même su fekkee sonn nga ci liggéey bi coono boobu da nga koy fàtte. parce que euh, le fait que ki nga koy defal yëg na ko rek. Mhm. yow bëgg nga. sëriñ bi nag coono bi mu doon tegool boromam la ko doon tegool moo tax buñ ko génnee këram tàqale ko ak njabootam mu won ginnaaw lépp bi mu yëgee ne am na ci ngërëmul yàlla. fàtte na coono bi mu ci daloon maanaam coono bi ko ci daloon yëpp le fait am na ci ngërëmul yàlla rek moom fàtte na coono moo tax li nga wax léegi bi ngay coupé ak soxna tuuti Mm. ci ne màggal gi yemu Touba dong lu yaatu la gis nga ñaari tukki moo am mm. dafa am tukki boo xam ne mooy tukki géej gi tukki boo xam ne mooy tukki jéeri ji mm. tukki jéeri ji mooy sëriñ bi dëkk yi nga xam ne na fa ci biir réew mi dem ko gànnaar ah. euh, demaat ko euh, euh, tey tey ci tukki géej gi tukki géej gi sëñ bi jógewul Touba bi muy tukki bul fàtte loolu hmm? jógewul Jurbel bi muy tukki waaye Jolof la jóge ah. man ngaa xam ne kon li ñuy wax yëpp mhm. julli géej gi waaw ak la muy siiw siiw yëpp ci àdduna mhm. sëñ bi jógeewul woon Touba déedéet nga ne jugeewul woon Jurbel déedéet fu mu jugee jolof la jógee jolof la mi ngi jóge dëkk bu ñuy wax Mbàkke Baari fa la jógee ca jolof hmm. euh, ci atum 1895 hmm. euh, bu dee ci at yi ñu natt ci doxinu doxinu weer wi ci lislaam di cent 1313 hmm. euh, ca la fa jógee ni ngi koy nettalee ci kër goo xam ne moo ko tabaxal boppam xam nga sëriñ bi Nicolas dafa teel a wuute ak ñëpp ci lu bari loolu moo tax lu bari dal ko loo xam ne dalul ñu bari ndax dafa teel a dog yoonu boppam yoon woo xam ne bi mu ci jaaree dafa jaaxal ñëpp hmm. waaye nag mu volonté wu bali ko ci fekk lépp fekk ko ci hmm. loolu dama koy wax ndax su ma àggee ci tukki bi hmm. wala bu ñu àggee ci dëgg dëgg kafe Touba gi ba jar gi war ñoo dugg ñu xam ñu xam fan la fan la yëf yi tàmbulee eh, dafa eh, maanaam tey way juróom di Mamor Anta Sali mi nga xamante ne mooy way juram yu ko jur eh, nekkuloon koo xamante ne cuune la Hmm. waaye boroom xam-xam la woon. Hmm. bañ ko daan wooyee xaadi maanaam ab attekat. Hmm. mu nekkoon procureur boo xam ne dafa doon atte ca jamono jooju. Eh, bi almaami ba Jaxu Ba wootee eh, jihaatam ji fële ca Saalum. Eh, ca Nioro. ki nga xam ne mooy Mamor Anta Sali dafa jóge Mbàkke dem fekki ko foofa. yóbbaale sëriñ bi loolu mooy poroxaan gi ngay dégg tey looloo ko indi. mu sañc poroxaan mu dend ak ñooru jirib euh, jàppale ko ca xare ba bi euh, almaami ba jaxu daanoo ca xare ba mm. lajjoor bàyyi koo foofa ñibbi kër amadu Yàlla Euh, Mamor Anta Sali dafa bàyyi koo foofa moom it dem fekki la joor sañ ci Mbàkke Kajoor mu dend ak kër Amadou Yàlla hmm. mu dëkk foofa di jàppale la joor ci liggéeyam di ko atteel di ko defal lu ne hmm. waaye loolu nag da dafa nekk mbir moo xam ne bu ñu ko mënee wax dañ naan mës sa saf sëriñ bi hmm. sëriñ bi moom li ko ñoroon booba gisoon na leneen ndax ci wàllu buur yi ak mbuur dafa am yum àndal yoo xamante ne diine daa am gisin wu mu ko gis loolu taxoon na mu am ay yeneen gisin yoo xam ne amoon ko ci euh, ci tënk euh, bi sëñ bi bi bi Eh, yiñ ko fa proposé yëpp keroog bokkoon na ci mu jël post bi baayam yoroon. Hmm. xam nga tey ku sa papa nekkoon tey conseil wu président nañ ma baal mu jóge fi ñu ne la kaay nga jël poste bi. Hmm. ndax sa papa kat dafa am taxawaay bu mu fi taxawoon am lu mu fi taxawoon loolu proposé nañ ko sëriñ bi waaye daf koo gàntal. kon teel a wuuteeg ñëpp gi tàmbali naa am. Hmm. ci yu bari. benn kon buur yi àdduna yi fi nekk gis nañ ne li ñu yor moom moom ñuru ko. sëfu ko loolu intéressé wu ko am na leneen lu muy xool. Euh, tubaab bi fi nga xam ne moo fi ñëw euh, ba pare di jaxase buur yi ci seen biir pour samp ay reenam hmm. yi muy def sëriñ bi wonu ko ne d'accord naa ci wonu ko ne d'accorduma ci waaye da koo desal ginnaaw ñàkkal ko solo hmm. ku mel noonu nag hmm. tuumaa la day yomb moo tax bi tuuma yi ñëwee te du weddi hmm. li ko dal lépp dal ko hmm. bi ko mag ñi waxee ne ko diw moo la jaxase ak tubaab bi dane faj ma jaxasee ak tubaab bi nit jotiwu fa hmm. Nicolas xam nga léeg nit ñi ne ko diw la jaxaseeg diw moom xoolut nit ne ko yaa ma jaxaseeg diw dafa jàpp ne loolu nattu la ndogal la bu war a tegu ci kawam tegu na ci kawam te dafa wax ne tukki bii ma tukki ci géej gi ba ñëw bu ma tukkiwul woon danaa alku danaa alake ñu ne ko lu tax mu ne damaa mel ne ku samp ay sàqam mooy fi ñu denc dugub yi ci kër yi bu ma koy misaal mooy ay magasin yoo xamante ne dafa lool dëkk bi ma nekk kenn amul loo lekk ñëpp ñëw toog ki buntu sàq mi pour ma ubbi may leen luñ lekk te biir sàq mi dara nekku ci maanaam dañ koo ràbbu rek tëj ko mhm. waaye bi ma tukkee mhm. nattu yi ma muñ ci la ma sama borom duyale sàq mi ba mu fees dell ba ñu ñëw ñëpp ma man leen a jariñ résultat bu toll noonu ku ko am ci ab tukki jaadu na nga ne sant leen ma ci yàlla mais kon euh, euh, Serigne Mbacké mm. euh, bile xeetu humilité mm. war nañ cee mën a jàng lu bëri. lu bëree bari lu bëree bëri. Mm. parce que mm. humilité ngay wax muy baat bu rëy sëriñ bi. Mm. mësta fayu. mësta fayu. mësta xeex. mësta rey sax weñ. <laughs> waaw mësta mësta jàppe nit noonu. ñu ko gënoon ak contre ci nit ñu ñuul ñi. ba ñëwee ci moom da leen a fat ñi ko gënoon a contre ci tubaab bi hmm. keroog bi mu tegee tànkam ci waaxum ndakaaru hmm. lim njëkk a wax mooy baal naa samay noonu afawtu anil aadaahi turran li wajhi man hmm. nafaahum li xayri sarmadan lastu adfau ba mu ne cëpp rek li mu wax mooy samay noonu baal naa leen baal naa ñëpp ñu ne ko lu tax mu ne dama koo royee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn yoon la ma sa wax ci géej gi tukki bi yëpp waxi koo xam ne yëg na liñ ko def mooy guddi gi mu fanaane woon ndakaaru nee na keroog bi muy jógee Louga weeru koor la fa maanaam la fa euh, la fa jógee ñu dugal ko ci saxaar gi mhm. mu jógee Louga akub coonaam mhm. nee na bi ma agsee Ndakaaru sama yaram diis na en tant que nit ma yëg ab coona ñu ne ko waajal nañ la benn néeg boo xam ne dañ la fay yóbbu ngir nga noppalu mhm. nee na néeg bi bi mu ñëwee di dugg bi mu tegee tànku ndey jooram weñ yi ñu ci teg daf koo jam ba génn ci kaw mu door a jël der bi mu yoroon ak yooyu teg ko ngir man koo laytaay man cee taxaw nee na su ma fana su ma fàttalikoo sama panaanum Ndakaaru su ma ko fàttalikoo hmm. sama xol day yëngutu ba damay bëgg a woote jihaad damay bëgg wax ne nañ dem dal ci kaw tubaab bi waaye nee na su ma fàttalikoo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko noonu ya def ca makka te ba mu ñëwee janoo ak ñoom da leen a baal nee na hmm. su ma ko fàttalikoo rek baal leen ida dakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa sabuta taarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi walakin sabba anil maahi na su ma ko fàttalikoo damay bëgg a woote jihaad waaye bu sama xel demee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nam baale woon ay noonam nee na noonu laay baale sama samay noonu man tam la wax am na solo am na solo euh, peeru solo boo xam ne euh, def naa ñun saa su ne suñu xel war naa dellu euh, ci lu ni mel mhm. bu ko defee humilité boobee ma tudd ñu koy sàlloo saa su ne et puis jéggale ak jéllale hmm. ah, hmm. ñoon itam ñu koy ñu koy def loo xam ne dafay nekk ci ñun hmm. ah, nga xam ne dañuy am esprit de dépassement def naa bu ñu amee esprit de dépassement ak immunité boobee nga tudd si ci sëñ bi euh, dafay dafay tax ñu ñu ñu positif euh, par rapport ak action yu bëri nga xam ne dañu koy mënee ci ci ci àdduna euh, màggal gi ci boppam d'ailleurs laatam ñuy tëj émission bi danañ déglu waxtaan yi sëñ Fallou xam naa ne loolee loolee dina neex ñu bëree bëri bëri ndax na ko oustaz Maodo ne mhm. euh, sëñ Fallou ci boppam mhm. euh, bu weesoo sénégalais yi sax nit ñee ko bëggal seen bopp ah, loolu beneen mbir la boo xam ne mhm. danañ ci gën a ñëw euh, cofeel gi nga xam ne nit ñi am nañ ko si sëñ sëñ ci sëñ Fallou wante màggal gi ak importance bi mu am ci ci taalibe yi ah, tey tey boo ko doon natt wala boo nu ko doon expliquer naka nga nu koy expliquer waaw mooy li ma doon wax léegi dafa am fu jaar sëriñ bi ñëwee Euh, ñëw njaareem hmm. ba ci atam yu mujj ci la wax ne nañ ko santale boroomam hmm. euh, saa yu bis dellu seetee wax naa la léegi ne nit ki bu góorgóorloo ci déggal boroomam ak bëgg ko hmm. ba yàlla nangul ko day def ñëpp bëgg ko réew mi euh, wala sëriñ Touba. dafa bokk ci ñi nga xam ne bëgg gi ko nit di bëgg du xam lan moo tax mu bëgg ko loolu dogal borom bi subhaanahu wa taala la bu mu def ci ay nit def ko muy koo xam ne ku la xam bëgg la daan na wax ne wala daan nañ wax ne sëriñ bi kenn du wax ne diw da koo bañ xanaa ku ko xamut la ñuy wax waaye boo ko xamee bëgg ko hmm. nitu yàlla moo mel noonu hmm. mbëggeel googu tax na cantaaneem googu hmm. mag ñi daan ko dunde noonu waaye déglul ku fonk sunna la fonk jaamu yàlla lool bari na yu ñuy wax nii ci mbedd mee que euh, lëfër lëfër yi di ko wax dara du ci sëriñ bi sori na loolu waaw xër nag Eh, yàlla dafa waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko sa gars yi bu ñu ëppal mm. bu ñu ëppal comme ni nasaraa yi ëppale ci Isa mm. bu ñu ëppal comme bu ñu la sonal comme àndandooy Moussa ya nañ ko sonale woon mm. nekk juste au lañ bëgg nit ki nekk ko ci ki muy àndal sëriñ bi bi mu diglee loolu. Hmm. mag ñi luñ mës a am dañ ko ciy def. di sant seen borom yoor yooru màggal ñu koy waajal. Hmm. Eh, di ko bége di ko di ko dund. Hmm. ba ni màggal gi ñëwee Touba tey. moo tax bi nga tuddee sëñ Fallou léegi. sama xel dem fu sori. ndax tey bu ñu wootee nii màggal. mën nañ ne loolu moom la. sëñ fàllu moo indi màggal gi Touba. sëriñ bi mës wax màggal si leen. déedéet mës a wax màggal si leen. sëriñ Mbacke si la nga ne sëñ bi mës a wax. màggal si leen lan la wax dafa wax ne bis bi bu mu dellusee fu waay nekk. waaw. te lii ma suma borom defal mu yéene ma ko. Mm. maa ngi lay ñaan nga sant le ma ko. ba noppi nag jël alalam def ko ci moom sëriñ bi. Mm. maanaam indil nañ ko ab gàtt. Mm. boo xam ne aw bëy la. mu digle ne dañ ko yóbbu ca marché njaareem ba soppil ko ko. ñu dem soppil ko ko mu dem xar mu ñëw lewetal ko. ne sante na ko boromam subhaanahu wa taala mag ñi jël programme boobu di ko santee noonu seen borom kon bu ma déggee sa wax ma nekk Amérique mm-hmm. wala ma nekk France mm-hmm. wala ma nekk Belgique mm-hmm. wala ma nekk sax Euh, bés ba bu ñëwee. Mhm. war naa mën a màggale foofu. dëgg la ah. war war ngaa mën a màggale foofu. étant donné que par exemple awma possibilité. Mhm. déplacé wu ñëw fekk si. Euh, macha allah xew-xew bi et tout ça fa ma ne mën naa fa màggalee. saa yoo amee ngantul ñëw ba mënoo ñëw. waaw wala wala yombut ci yow. Ah. fa nga nekk. ji maanaam jullit bu man di doon bu dix-huit sawar ñëwee hmm. fa nga nekk mën naa doon sax Tuubaa léegi nag dafay poser la question de hmm. euh, bu boobaa hmm. naka laay màggale maanaam par exemple admettons ma nekk Amérique ah. bës ba ñëw naka laay màggalee fa ma ne naka laay jëmmee jëmmalee ne euh, bés bi c'est spécial. laaj bu am solo nga laaj. Hmm. xam nga ba léegi dañuy màggali waaye waxtaanee guñ nan lañu war a hmm, màggalee. Hmm, <laughs> dañuy dañuy dem Touba rek. boo taxawee Pout laaj ñoom Nicolas bu ñu wàññeeku. Nicolas nu màggal gi mel mu ne wuu. bernde yi bernde yi bernde yi sañse yeeg ah. yooyu yëpp ci la bokk ndax cant daa ànd ak bernde. Euh, waaw sant moom day ànd ak xéewal yu baax. ànd ak col gu rafet. ànd ak kanam gu belli. waaye day ànd ak jaamu yàlla day ànd ak jaamu yàlla. ah loolu mënuñu ko. déedéet mënuñu ko mënuñu mbir. déedéet loolu sax mën ngaa wax ne mooy keno bi ci gën a rëy. est-ce que ñaari cant moo am cant gi nga xam ne mooy cantuk xamd. Hmm. ak mooy cantuk sukuru. Hmm. cantuk xamd mooy ni ko laa ne alhamdulilahi rabbil alamin hmm. maanaam mi ngi wax ko ci làmmiñam mooy cant gi nga xam ne làmmiña koy wax. cant gi nga xam ne ay cër koy jëf nag. mooy yow tey war nañ laa wax sëriñ bi ci lan la nekkoon. ni ban programme la sëriñ bi yoroon. ba tax mu tegoo coono yi mu tegoo. nga xam ne mës moom boppam. ma euh, ma fàttali la loolu. li taxoon waxut ñëw leen màggal si ma. contexte bi mu doon dund mayu ko mu ne ñëw leen màggal si. ndax nekkul ci ab dëkkam. nekkul ci fu moomee boppam ci saa saayir. résidence surveillée la nekk. bu bu waroon a génn dem tukki day tàggoo ji day bind tubaab bi tàggu ko ndax dana ko bàyyeem déet. te loolu am na ay yoon yoo xamante ne tubaab bi gàntalal na ko loolu. fukki at ak juróom yoo xam ne ci kër la ko def ci njaareem yoo xam ne résidence surveillée la nekk kon kooku mënta wax màggal màggal si leen. bi yàlla dogalee Touba taxaw nekk ab dëkk. Mhm. ndax sëriñ bi Touba rek la ma sa bëgg. Mhm. même bi muy nekk Jurbel mag ngi nee nañ bu nit masaana ñëw dalay lay laaj Touba di la laaj guy di la laaj sump ya kàdd ya. di la laaj tund wa ndax bëgg gum ko bëgg. bi mu nelawee ñu yóbbu ko fa. Touba mhm. nekk ab dëkk. sëñ Mourou Moustapha taawam bu baax ba. Euh, naal jumaa ji. Euh, dëkk ba tàmbalee dund. sëñ faa lu ñëw àggale jumaa ji. kon ku amub dëkk am jumaa. da ngay soxla lu dundal dëkk bi. waaye nag mu ne lépp lu ñu defal sëriñ Touba. defal ko ci dëkkam bi moo ci gën a yey waaw foofu la ko lay taay woon mm. lépp lu ñu koy defal defal ko ci dëkkam bi moo ci gën a yey ne léegi bu 18 safar jotee képp ku ko man ah. na nga ñëw ci dëkk bii ah. ñu ànd santale ko boroomam ci dëkkam bii. Ah, loolu mooy woote màggal gi mooy waxtaan yooyu nga xam ne moom ngay junj. moom ah, am na solo. Ah, kon kon kon bu ma la déggee Serigne Mbacke encore une fois ki nga xam ne dafa nekk extérieur wala fu mu mënta nekk ci àdduna. Mm-hmm. Mm-hmm. mu bañ a jàpp ne rek màggal gi effectivement pour ñi dem Touba dañuy faral di wax bernde yeeg yu ni mel am na solo naam mm-hmm. na nga ko waxee. wante it ñu bañ a fàtte ne aussi julli bi ci boppam. dafa am solo trop trop ci kilifa yi. effectivement ah, ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. Euh, parce que aussi il faut que saa su ne suñu xel di dellu ci suñu borom. Mhm. te màggal gi occasion la également ñu gën a ñaan également par rapport ak euh, un certain nombre de choses. Mhm. parce que en fait loolu mooy loolu mooy loolu mooy essence su même mhm. màggal gi. booy set. dëgg la mooy essence su même màggal gi mooy bu jaamu yàlla gi amee. Euh, li nga li nga indi nii ci sa biir émission bi. dëgg-dëgg mooy màggal gi. ak yi ni mel. mooy ñu nga xam ne moom lañ am réew mi ñooy ñan. bind na. bind na ba fi. Mhm. d'ailleurs ci bind yooyu. Mhm. dana danañ ci gën a ñëw gën ci xuus. parce que li mu bind euh, bëri na macha allah. Mhm. Euh, te am na lu bëri loo xam ne war nañ ko cee mën a jàngat. dëgg la euh, day wane également jàngalekat gi sëñ bi nekk. jàngalekat ci ci àdduna bi yëpp nag. parce que bu ma boo xoolee boo seetloo yow mi borom xam-xam ci yenn bindam yi. mel ni dafay wax ak àdduna bi yëpp. par rapport ak lu méngoog jamono. Ah. bàyyiwul bàyyiwul fenn bàyyiwul lenn. déedéet dafa bind. dafa hmm. wax sax ne ne wax naa ngeen dégg. Hmm. def naa ngeen gis. Hmm. bind naa bàyyi fi. waaw xam nga ku wax loolu wàccoo nga ak ñi nga xamante ne ñoom nga jaboote wàccoo nga ak àdduna. wax naa ngeen dégg. bind naa wala def naa ngeen gis. bind naa bàyyi fi. beneen bi ci des li nga xamante ne mooy xeexal nit ku ñuul. Euh, tey bu ñu wax nit ku ñuul donte moom sax dafa am beneen déggin wu mu ci am dafa waxoon ne ñuulaayu la maanaam yaram wu ñuul tegtale wul ne nit ki du am xam maanaam ñuul tegtaliwul hmm. ne daa war a tax ñuy topp ci ginnaaw ñu weex ñi rek ba faw hmm. bu dee ci diine ji bu dee ci àdduna bi hmm. ñuul taxut nga jàpp ne man damaa ñuul rek bokkuma li mu doon junj mooy maanaam da nga inférieur voilà loolu daf ko bind fa laysa yujibu sawaadal gis jismi safaahatal fataawa suul fahmi nee na ñuulaayu yaram tegtalewut ne nit ki dafa dafa amul xel wala nit ki dafa dut comprendre li xew maanaam euh, fu nit war a àgg war na faa mën a àgg mhm. loolu benn la ci ay mbindam mhm. yu méngoog jamono yu ma lay yu ma lay jox nii mhm. ndax loolu dañ koo soxla tey tey ñu ngi soxla am ay leader ñu ngi soxla am ay nit ñu xam ñooy ñan saa su nekk Afrique ngi wane ñi nga xam ne ñoom la am Afrique ñi mu am ñi ci gën a rëy see Ahmad Bamba da cee bokk dafa bokk ci ñi nga xam ne ñi gën a siggil àdduna ci lañ bokk waaye rawatina Afrique rawatina der bu ñuul ndax koo xam ne. bi muy ñëw. dafa fekk ñi woote woon te jàkkaarloog tubaab bi. te yoroon arme. ñëpp tubaab bi da leen a da leen a rey ñenn ñi ak seen i soldaar ñenn ñi seen i euh, seen i nguur taxawut ñenn ñi lañ doon jàllale jàllale ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ nag yal na leen yàlla fay. Hmm. moom bi mu ñëwee mu ne fa ñukk loolu jël beneen méthode. Hmm. ñu ne ko dangay ngay jihaat mu ne waaw. parce que tubaab bi daf ko woo mu ñëw mu ne ko terroriste nga lii ñuy jàppe gaa yi. Hmm. loolu ko tubaab bi ji ñoon tubaab bi daa wax sëriñ bi ne ko terroriste nga mu ne ko waaw waaye man li may jihaat du ma taal kënu du ma yori bomb du ma takki du ma du ma takk dara du ma yori jaasi looy jihaate mu ne xam-xam inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa sama sama jihaat mooy xam-xam maanaam jàng ak jàngale ak ragal yàlla lool laay samp ci loolu laa nekk Euh, mais bu bu ñu bu ñu dellu si waatee beneen yoon. Hmm. ba nga xool kii lan lañ ko tuumaal lan moo lan moo war a tax ñu teg ko liñ ko teg. nga xam ne nga xam ne lii nga xam ne lii ak. tooñaange mënu ah, koo weesu. justement danañ gën a ñëw ci loolee. Euh, parce que puisque dañuy faral di dégg lu bëree bëri bëri tubaab bi la mu def sëriñ bi et tout bëgg nañ justement gën a xamanteeg yooyee. jamono ak yooyee événement lan moo xewoon exactement sëñ bi fan la jaar exactement ba nu agsi fii nu agsi tey euh, wante sànq ñu ngi doon wax waxi màggal gi ak hmm. important am hmm. dafa am fu mu jógee tamit woote woote woote woote màggal dëgg la euh, juñu naa sànq ne euh, am na waxtaan bu am solo bu euh, sëñ Fallou defoon ci yooyee jamono dëgg la ci waxtaan woowu ci ngay ñëw Nicolas mm. waaye bala nga koy ñëw mm. xam nga at mi nga xam ne moom la sëriñ bi doon dem ci géej gi di mil 1895 mm. at moomu ci la sëriñ Bassirou gane àdduna sëriñ Basiiru mooy way wayjuru sëriñ Muntaxa mi nekk sëriñ Tuubaa tey est-ce que bi ngay waxtaane tey màggal gi di eh. indi eh, eh, époque màggal gi indi rubrique bu bees boo xam ne dafa dëppoo ak contexte bi ñu dund tey hmm. waaye dafa dëppoo ak beneen gisin buñ am hmm. boo xam ne réew mi ku yaakaare day yàqu yaa ngi nax sa bopp hmm. waaw ñi koy jéem a yàq bu buñ koy jéem li ko defar ba taxawal defaral gu bari dafa yaatu at moomu ci la juddu moom Cheikh Mouhamadul Basir hmm. mi nga xam ne mooy wayjuru sëñ taxaa tey mi nga xamante ne mooy xalif général des mourides boo demee ba ñëw ñu gën a yaatal foofu incha allah kon euh, maa sant bu baax di la gërëm jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf nanu tàmbalee café Touba yi na la waaw waaw waaw bu ko defee nii lañu ko doxalee rek ba ci màggal gi xam nga Oustaz Sall moo lay wooye Sokola waaw léegi léegi tey ma demee ne ko boole ci café Touba Sokola indi na café Touba mais kontaan naa trop. jërëjëf jërëjëf ah, ah, fàttali donc mbokk auditeurs yi ne mm-hmm. euh, bés bu ne. na leen jéem lu nu mën ak sëñ si la ngir euh, voilà gën leen leeral par rapport ak màggal gi ak importance am wante it euh, par rapport ak kilifa yi rawatina xalif yi nga xam ne jot nañu fay jaar. te ku ne am loo loo jàngal. Mm-hmm. mbokki taalibe yi ci dundinu àdduna ah, de mm-hmm. façon générale. parce que ce n'est pas que l'aspect religieux mais aspect naka la ñuy profité. ci yooyee ngir ngir gën cee mën a dund. gën a mën a yombal suñu dundin aussi euh, te na mu gënee aussi loolu ah. da ciy am solo lu am solo nga wax mooy mm. sëriñ bi mm. euh, yenn jëmm la mm. ju ay jëmm yu bari wër ba liggéey bi agsi fi mu agsi moo tax bi nga junjee tey xalif xalifaam yi muy muy doomam yi tàmbalee ko sëñ Modou Moustapha fi nekk waaye mag ñi mu àndaloon ci liggéey bi di ay gor yu dañu réer tëj seen i kër ak seen i daara ñëw topp ko yooyu yëpp danañ ci ñëw insha allah euh, waxtaane ko ci sa café Touba gi kon ba suba ak jàmm ba suba Nicolas Fallou waa kañ bàyyi jërëjëf Serigne Mbacke Sylla ba suba ak jàmm eh, ci beneen Café Touba. li tax nag mu woo a nee na li tax mu wooyewu leen wut dara ci wut dara. wooyewu leen di wut dara ci dara. kon naa ko sàkkal waxtu kon. ne bu fekkonte ni da leen di wooye di wut dara ci dara kon dina sàkkal waxtu barab bii ne kon du nekk ba nawet mu def ko. waaw ngir topp da leen di woo ngir topp ndigalu sëñ Tuubaa. di leen wan na mu toll woon fi moom. di leen wan na mu toll na ndigal li toll woon fi moom. ni ngeen dikkee nag neex na ma lool bég naa ci. ni ngeen dikkee nag neex na ko lool moom sëriñ bi bég na ci. maa ngi maa ngi ko gërëm leen di gërëmal sëñ bi bu baax a baax. mi ngi leen di gërëmal sëñ bi bu baax a baax. na ma waxoon mooy ni ngeen def. ndax la ko sëñ Touba santoon mooy lii ngeen def. da ko santaane woon nag. da ko santaane woon nag. booba mi ngi fi di ko doxal. booba mi ngi fi di ko doxal. doxal na ko diir bu gàtt. doxal na ko diir bu gàtt. yàllaa te mu dikk fii. yàllaa te mu dikk ci barab bu tedd bii. sëñ Modou Moustapha mi nga xam ne ginnaaw moo fi nekkoon itam. sëñ Modou Moustapha mi nga xam ne ginnaaw moo fi nekk itam. doon na ko doxal. doon na ko doxal. waaye moom yàggul. moom itam yàggul. man mii nga xam ne maa fi nekk léegi nag. man nga xam ne maa fi nekk léegi nag. damaa damaa def koo xam ne ngottu ma. damaa def koo xam ne kii ngottu ma. bëgg naa rek. mu yaatu yaatu goo xam ne. mu yaatu yaatu goo xam ni. la mu ci bëggoon. la ci sëñ waa bëggoon lépp. mu am ko ci. ah mu am ko ci. la mu ci dëlee itam. la mu ci dëlee itam. ñëpp am ko. ñëpp am ko. ndax bu ma sañoon. ndax bu ma sañoon. lu baax laay am. lu baax laay am. man ñëpp te ko ñëpp. te bokk ko ñëpp. moo tax bis bii nga xam ne. moo tax bis bii nga xam ne. sëñ bi da koo santaane. sëñ Tuubaa da koo santaane. muy sunu bis. muy sunu bis. dama bëgg ñëpp di ko fekke si. dama bëgg ñëpp di ko fekke ci yaakaar ci moom. lanu ci yaakaar ci moom. moom itam mu bëggal nu ko. moom itam mu bëggal nu ko. daana ko am na mu ko bëggee ci noonu. dinañu ko am na mu ko bëggee ci noonu. dama bëgg daal. damaa bëgg daal. bi nga xamee ne. bi nga xamee ne. waa penku gële. waa penku gële. dañu fay daje ji. dañu fay daje ji. te lu tax ñu mën faa daje. te lu tax ci kaw jàmm. ci kaw jàmm. dañoo am kiiraay. dañoo am kiiraay. ma bëgg sow bi ma bëgg sow tam itam. mel ni penk boobale. mel ni penk boobale. ci kaw kiiraay li ñu am. ci kaw kiiraay li ñu am. nit ñi ñu la booleel. nit ñi ñu yàlla booleel. français gi le muy nguuru français gi le yàqaluñ ñu dara yàqaluñ ñu dara suñ topp yàlla ci sunu topp yàlla ak suñ bëgg-bëgg ak suñuy bëgg-bëgg ak topp ndigal li ñu sëñ bu fekkoon dimbali wuñu woon bu fekkoon dimbali wuñu woon ji du ji nga xam ne mi ngi taxaw fi seen kanam fii nu ko amee mooy fi nu ko bëggee mooy fii nu ko bëggee ñu taxaw ba mën koo def taxaw ba ñu mën koo def itam sant nañ ba sant leen bu baax sant nañ ci yàlla bu baax a dër mooy sunu gox. ndax seen dër mooy sunu gox. ndax ko boole la ca. kooka mooy yow rek. kooka mooy yow rek. la nga bëgg ci moom. moom ngay bëgg ci moom. sama xol na ci ñoom bu baax a baax. sama xol seet na ci ñoom bu baax di dëggal mooy topp rek. mooy topp yàlla rek. topp yàlla nag. topp yàlla nag. boo lool. waaye su waaw yàlla ci boppam moo rëy waaye yàlla ci boppam moo rëy xam na ni nag mbindeef amul doole xam na ni nag mbindeef amul doole jaamu gëm santaane jaamu gëm santaane ku ne mën nga koo def ku ne mën nga koo def te du yàq ci ci say soxla dara te du yàq ci say soxla dara loolu nag loolu nag juróomi yëf rekk la juróomi yëf rekk la da ngay nangu ci sa xol ni yàlla yàlla rekkay buur da ngay nangu ci sa xol ni yàlla rekkay buur wax ko ci sa làmmiñ itam wax ko ci sa làmmiñ itam muy dëgg ci yow muy dëgg ci yow nga ne ashhadu an laa ilaha illa allah nga nga ne ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu laa sharika lahu wahdahu laa sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rasuluhu wa shahada anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boo ko waxee boo ko waxee xam nañu la nga wax dëgg ci yow jëfe ci topp nag jëfe da koy wax da nga koy yéene lëf da nga koy yéene ko jëfe ko jëf ji itam jëf li mu ci lu yomb la li mu ci santaane la yéen la yéen ci yëf rek la julli yi juróom julli yi juróom moom la bis yi moom moom xam nga suba suba tisbaar ak tisbaar takkusaan takkusaan ak timis timis ak gee ak gee julli leen yomb na lool na lool juróomi julli rek la diggante bu ci nekk ak morom ma diggante bu ci nekk ak morom ma soob mën oh, fu la soob mën nga ko fee def loola soob soob it mën nga ko caa def sa yitte mu des at mi at mi at li ma la ci sant li ma la ci moo di boo liggéeyee ba am ba am dara di boo liggéeyee ba am dara ci sa alal ji sa alal mbaa sa mbay. ci sa alal mbay. nga def ci asaka. loolu suñu borom a ko moom. loolu suñu borom a ko moom. sant suñ ko ci lu may boobu benn yoon la doon ci at mi. sant la ko ci ci at mépp lu dul benn yoon. lan weeru koor mooy moo topp ci mooy mooy yaareel. ginnaaw ga weeru koor moo ci topp. weeru koor it weeru koor itam at mi fukki weer la ak ñaar at mi fukki weer ak ñaar la benn weer dong la ci sunu borom laaj wenn weer yi dong la ci sunu borom laaj te loolu daf laa sant nga bañ a lekk bëccëg te loolu da laa sant nga bañ a lekk bëccëg te bàyyi la bàyyi ci lu bon bàyyi lu bon li mu la digalee lu bon nag ci ci weeru koor la ko digalee ci weer yëpp weeru koor nag li mu ci teree lu bon ni la ko teree ci weer yëpp waaye weeru koor nag moo ci gën a màgg weeru koor nag moo ci gën a màgg da nga koy man da nga koy man am lu la yóbbu am lu la yóbbu am amuk wér amuk wér boo mën a demee goo mën a nga def ko benn yoon dong jafe woon na lool woon na lool léegi nag yomb na léegi nag yomb na ci kaw ndimbal lii ñu ñii dimbale ci la yomb kaw ndimbal nga xam ne moom la ñu ñii di dimbale ci la yomb googu dikkee ndax naka jekk ndax naka jekk ña daan aji ña daan aji dañ daan jóge fi weeru koor dañ daan jóge fi woori koor bala ñu àgg makka bala ñu àgg makka weer wa dellu si wa dellu ndax tànk lañ daan demee xam nga loolu wut nag dem ci ñaari fan rek loolu nag wuute nag dem si ñaari fan rek dellusi. Ah, bu mu tax nag. waaw bu mu nag ngeen defee ni def ko mooy yoon. waaw ah, def bu mu tax ngeen defee ni def ko aw rek di dem ak a dikk di dem ak a dikk. kooku tukki rek la. kooku tukki rek la. wenn yoon bi boo amee rek. wenn yoon bi amee. def nga ndigal la def nga ndigal la doy na.